benn ak benn la ashaabu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci hôpital euh, bi ci gis nañ ci daara yi daara ashaabu Cheikh ci jumaay Fann ah, ci jaayirmaan bi ñaareelu xaaj bi xatam ñaar téeméer ak juróom fukk bi ak ñett léegi nag ñu waxoon nag jigéen li tax moom mënta yore yëf yi bu ko yore woon tee rek lu gaaw rek jigéen moom dafa commencé yuuxu ah, ak yooyu kon nag mu ne kon xam nga li seppaal diggante góor ak jigéen wa bi saalika ci loolu xaala aadama alayhi salaatu wassalaam lama axbara ba solo xawaa xawaa li ma tóola di deeg doomam xaabil xaabil ba aadama waxee xawaa ne ko sa doom xaabil day xaabil rey na ko ñu ne xataloo xaabil xaala wax lahaa maata deena xaabil xaabil aadama ne ko xaabil deena xaala loo xamaa ne ko ndax booba li ñu doog a dégg luy dee maa maanaam moo ci luy luy maanaam dee aadama luy maanaam dee xaala mu ne ko laa yàquloo du lekkati wala yasrabu du naanati wala yataaram xaraku du yëngatut aw kama qala ba mu ko waxee rek fasaxaat yu moom xawaa hina itin yaaxan yuxu sadd bu tara ah li kibaril musibati ndax riyaayu musiba ba ah lamaalam takkun ba nekk laa ñen ko quwatun kàttun ala taamula xenu musiba wu boo déggee ku yuuxu rek lam yenu la attun ku yuuxu mu daal di yuuxu ndax ay woo xaala wax naa ñel xawa alayhi salaatu wassalaam aadama ne ko alayka ala banatika jàppal ci sa doom yi wa ana man wa awlaadi minu bara uñu set lañ man ak sa doom set nañ ci lama alima ba xamee fi sukóoriyati ci ak góor wal unosati unosati ak jigéen bam xamee ak góor ak jigéen maasakana lañ tudd min wujjoodil quwati ci am ak kàttan ci góor wa faqdiha ak ñàkk kàttan ci jigéen fa innahu moom aadama alima xam na euh, moom maanta xaabil déeg xaabil xam laa lu jiitu xawaa famaa jasaxa tiitul wala saax yuxul wala taraba baj bajuwul bi maanaa yëgul déedéet tasaaxarat feeñ na xóotu sukkariyati kàttanu doole ngóor góor góor ga lii moo tax ci la doole góor wan feeñ alal uno séeti ci ak jigéen kon nag li tax jigéen bu ne am na doole it amul doole bu caaxaan faaxee rek ñu xam ci raf fa in xiila bu ñu waxee maasakatoo li nga xam tudd na ko mel ne xóoti bu ñu waxee liñ tudd ci kàttan fi sukkoor yëpp ci góor ne laa yesu loolu wérul boo amee contre kan yoo xam ne da ngeen wax wóorul li qawli ndax am subhaanahu wa taala xalaqa binna al insaan insaan daifan mu am ah, faiblesse néew doole yéen ngeen ne kon nag kon nag fu góor jële doole binna insaan daifan wa qawluhu subhaanahu wa taala allahu allahu àlla si mooy koo xamante ne xalaqakum moo ne amal min daafin jël leen ci néew doole wa allah yaxlam kum waa li ma am na xam ne ana ko ana fii daa fan ak nin doole ñett yii alquran waxul ngeen ne góor am na doole fu ko jëlee <laughs> dégg nga ne ko eran xamal ana ana ma sàkkarootu ko ala taala min dof lii ko yàlla tudd ci ak duufu laa yéenaa fi dàqul alquwata doole dàqul ne amul doole su ma ina dafa naka néew doole gi sàkkatu ndox allah yàlla taala innama tara aratul xaalaa jasadi aadam ca yaramu aadama la yëfër wat wa saayiru insaan al yàqale mooy biti insaan faqat dong foofu la néew daale ko fekk. ah waaye xam nga nit am na doole eh, bu fekkente ni nañ ko xalaat waaye yaram wa nag luñ ci demee ah fama sàkkara laahu subhanahu li nga xamante ni yàlla tudd na ko subhanahu wa taala fi xalqa insaan ah illaa jasadoo lu ma jët yàlla nag lii ma wax naan dafan dafan boobu waxu lu ma yaram wa faqat dong ah wama sàkkara Qalquruuhi ah waxut ca bind rek ruuxu ko ilaa radiyun lu may loo xam dafa gërëm laa ñëw ko bi qawli subhaanahu wa taala kon waxal ne aruuxu ruuxu min amri rabbi mi ngi bàyyi ko ci amri bi kon waxuñ ruuxu wa qawlu subhaanahu wa taala innamaa xalaqnaa weer na bind al insaana insaan min nutfatin kon xam ne nit fañ ko jëlee néew doole wal muraad mi dama na bi sikkiri jasadi yi ñu tudd yaram waram ngi néew doole laa laaru xoo xoo waxuñoo ko xawloo xuliqa amales na al insaan min alaqi loolu moo la xamal ne kon nag xalaq booba lañu xaskan ne néew doole ka wal muraad mi nam bi cum ak jasadu moo yaram wa xawloo fa inaa naka ñun xalaq naa kum amal nañ leen min turaabin ngeen bàyyi ko ci suuf suma min nutfatin ngeen topp ci toq ma ne ba aay bi jeex kullu saalika lépp ci yëpp yaram dafa nam moo biitoo algisatu yaram wala ci namoo fa inna hoo moom wa inkaana même nekk loo ñu ko wax koo turmaa yi boo amee doole ndox ma wa bi fa lay saa nekk ñoom ñaar daa ima ñoom ñaar nekkuñ sax ndax ndox ma suuf sa li annahuma yanha bi maa dañuy màbb yowmal qiyaama dañuy màbb duñ fa des na fi kon nag wa quwwatuhuma seen doole ja layta nekkul doole ja daa imatan de doole ja sax kasaar comme na ko noonu jësanul insaan qudratu kàttanam ba allati nga xam ne yemam minal maay mi ngi bàyyi ko ci ndoxu turaa bi layta nekkul daa imatan sax loolu tax ko nag nit kàttan yooyu mu jëlee ci ñaar yooyu sax wali saa loolu tax taraa ngay gis al insaan nit yetalaasaa dafay niile dafay seey yaayaate bi maanaa dafay néew doole wayantaqilu mooy taxu fil adwaari ci ay temps nga gis ni toxoo ci Ah, bébéga dem daw nekk ca commencé nag toog commencé raam commencé dox war taxayraat yi ak i changement mi ci ndaw ilaa tufóola ci jëm ci ak ah, léegi maanaam mu nekk di si baa mu nekk di bébé ilaa tufóola ci ba mu nekk di xale ilaa saat ba mu nekk di waxambaane ilaa kowóola ci dem ba mu nekk di da nga maam ñaax demi pas ilaa say xoqati ba nee na nag lii nii kon nag loolu yëpp ay néew doole ilaa arsène lu xomri ba mu dem nag foo gën a subi ci dund mooy lan dem ba léegi nag xam nga mën ngaa nekk paa te néew doole waaye nag nga dem ba léegi nag nga xojj ko nga kuuge nag commencé nag jëlaat comme xale fooy na kuwatoo kàttan lay nekkul daa imatan de continuer kama kaan nekk nekk yàqu autrement yi ndox au travers ñoom daa iman day continuer wa amaaru nag roog nit fay naa naka moom min safaay safati noori al ilahi ma nga bàyyi ko ci set seggitu sell ak leer ak ga àll si yaakaar xaalisum xaalis lu sell ca pay ba la ah al ilaahi ba xanaa ma pay yàlla daf caa ci wécc wala am na ñu ne ko ci kàttan maa loo xam ne laa xaayat di daya loo ñëw ko moom ruuxu am na doole joo xam ne xamaloo fu ñëw wala saa loolu tax nag baqiyat daa des lil adabi ndax yaru laa yu durokaado ko jot mu alfanaawu jeex moom jeex du dugg du dugg róom foo déggee nit ka néew na doole ca yaram wala waaye du ci róom foo in xulta buy ne isaakaar mu nekk xayrul unosiyati ah bi maana ngëm ji jigéen fi du fi xaalama sàkkat sàkkat fa kay fa li Fatimata ñel nan la ñeel Fatima radiyallahu anha an tataamala mu mën a yem nag oota abayit xilaafat lu tax na gannaaw jigéen ah dafa néew doole lu tax Fatima moom mën a yem nag ootul sept cent dix bi nga xam ne sept cent ci bàyyam ndaxte Fatimatu moom moo yore woon sept cent bi par intérim ah doko ko wàcc bu dee loolu am na euh, kon nag lan moo tax nag jigéen jooju am ngëneel googu ak néew dooleem gi daal di nekk xalifa xultu ma ne wala wax xulta nga ne alam xamal am na fii ruuha nekk na ci roog Fatima ka xóotun kàttan lay set ka xóotini saa yi mel na kàttan jigéen ñi roo nga dafa am doole boo xam ne bokk na doole jigéen bi ah, mukk ina jasadaha naka yarawa radiyallahu anha takka woon na amee woon na xan istimdaadil jannati ci tëbbug àjjana ga la yaramu ah ndey Fatima amee wal jannatu àjjana kullaha yëpp kullaha yëpp bi xaayatil xóoti mi ngi nekk ca daay li annaha ndaxum àjjana daaru tëjëli ah mooy ëtt kërëb feeñukaalil xaqit ah subhaanahu wa taala fa qawaaha dëgëral na ko subhaanahu wa taala li quwati ca dooleem alkaamil gu mag ga dooleem gi mag ci la doolelee àjjana wa kulluha saa kon nag loolu min ha fi xaayatil xóoti mi ngi ci daa dayo doole wala mataanati ak dëgër war sa bàtti ak daal lépp la fa nekk rek ci day dëgër ah day doole ak dëgër ak sax lu tax li tijjileet yi lay ndax tijjileet lay fay feeñ moo tax ñu dëgërale ko noonu moom àjjana fakkaan nekk na jësadaa yaramu lay Fatima radiyallahu anha min wonaaka foofee li am na nut fataha ndax toqinu ndox ba nga xam ne ci la amee tàkkawanat ma nga amee min tufaatil jannati ci pomu àjjana bu yonent bi lekkoon ca la soso fastamara tëbbu bi saalika minul xóoti kàttan al ilaahiyati bi ak xam ne kàttan ilaahiya fii ruuyaa ci room nga wajjee si ak yaram maa loo xam ne lay sa nekk ca liñ saa yi ñeel jigéen ñi meski bu nu wàll foofu la amee loo xam ne jigéen ñi am ca fa misaalika ci loolu nag taamala yee laynoo abal xilaafati sartement bu diis boo xam mooy sartement diisu xilaafa al ilahiyati waqat ba sat naa yaatali al kalama xale a ci loolu raj loo xanaa fi eh, ujjoo ba bañ koy tontoo xaayatul basiri am na foo xam ne dañ ci doon tontu fa man araadahoo fal yu taali yu ko ko bëgg nag na ko seet foofu wasalaam kon nag yal na yàlla jox dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa